li ma njëkk a xeexal jigéen ñi mooy dinaa xeex pour ñu am kàddu suñ amee kàddu rek nga xam ne liñ bugg a dinañ ko mun a def te du am benn jafe-jafe ak seen bépp coono ku moo ñëwee rek dinañ traité foofu mu wàññeeku da nga xam ne kenn ku nekk dina nekk sa freedom